halaan bikum wuure wa dem na këng waxi mag dem na ndañ taali suba ci samedi ji ci la njiit réew mi Macky Sall di wax kan la tànn ngir mu nekk mbër candidat Benno Bokk Yaakaar ci wote 2024 yi l'observateur moo ñu ko xamal leesi ko yéen a kaay na ko fay gën a leeral yëf suba samedi ji ca pale ba bu 16h jotee ci la fas yéen a dajee kànga mu Benno Bokk Yaakaar yi ngir wax leen ki mu tànn Vox Populi ne moom kay fa tànn ba pare moom njiit réew mi xanaa kay fa ko yeggee gaañi rek turbine yéen a kaay ne waaye hée faa leen di xamal leen njiit réew Macky fa aaye bu kenn fipp bu kenn mer mbanaan yaa ngi bàyyi APR su fekkee tànnuñ la yaaw fa ngay xool moo xam Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo ak Aly Ngouille Ndiaye ak Mame Boye Diao ak képp koo xam ne daal fa ngaa bëggoon a nekk candidat su fekkee Macky tànnut la suba ba ngay dof dof la naan fa ngay mer wala fa ngay aw yoonu bopp xam nga nu la fas yéen a def rapport corona bi ñu ñu tuumal na ñoo ci lekk xaalisu duñ am yem de ku ci amee poste fa nangu sa poste bi dàq la ba pare andi la ay problème moo tax képp kuñ ci tànnu tamit fa ngay noppi rek muñ wal fajir yéen a kaay na ko hee gis ngeen loolu terewut dana am ñu mer dana am ñu aw seen yoonu bopp maa la ko wax mënta ñàkk faw fipp am bés bi yéen a kaay na ko maa yow boo ko xalaat de pour njiitira Macky Sall suba buy tànn fay xam ñu bëri ñoo xam ne fañ koy bàyyi wan ko ginnaaw ah, yaaw seetal demaguñ fenn te am nañu ko bàyyi ku mel ni Youssou bàyyi na Benno te est-ce que sax nekkut moom fay waajal pour samp ndënam nekk candidat laaj réew mi 2024 moom Youssou Ndour l'observateur na ko ah du mën a la déedéet li ngeen wax ni mën naa nekk ndax dajee na ak waa mouvement ba fekk ma ci boole baña ngay nas seeni pexe yor yor yéen kaay na leen xëy Youssou Ndour daal fa xam ne fi ni heure calcul moo jot moo tax mu nekk boppam ndax li daloon Abdou Diouf 2000 moo ko nar a dal mooy ñoo xam ne fa ñoo àndoon ak mujj bàyyi la woon la ginnaaw dem loolu moo daloon Ablaye Wade 2012 kon Macky tamit benn bokk yaakaar ak waa APR yi du ñàkk ñoo xam ne fañ koy bàyyi woon ko ginnaaw bu tànnee ba pare yéene kaay bi ne waaye candidat benn bokk yaakaar bi njiiti mi waa benno la koy njëkk a wax ba pare samedi donte waa APR ñoom amaloon nañ daje seen biir <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne élection bi nga xam ne candidat yi nar nañ koo am mooy wàllu parrainage ne ñu bëri si ñoom duñ mën a nekk candidat ndax parrainage ba mooy ca seen kanam na leen xalaa mandir bàjjo xalaa xalaa du ngeen fi jaar fañ lay seppi ci ay doublon yu ma la mënta wax si du quotidien jox kàddu njaga si la xam-xam màcc ci wàllu élection fa dëggal li ni mel ne problème bi yëpp mooy parrainage bi système bi gaañi amuñ ci benn maîtrise lu jëm ci doublon yeeg tirage candidat yi nañuy toftalantoo ngir jaar joxe seen parrainage am na côté bu mu baax waaye am na côté bu mu bon li baax ci xalifa sàll nag ak ba tey yéen kaay bi di ñu xamal ne rapport Sénégal yi ñoom awa di fanaan fu malaat fa ñoo dajee ak jëwriñ ju ñu dénk wàllu yoon Ismaïla Madior Fall di sàkk ci moom ngir yàlla ñu bàyyi seen naataango rapport yi nga xam ne ña ca kaso ga ku mel ni nit dof ak Abdou Karim mu njaay Cissé nag moo dox ba audience boobu am fu malaat moo ko wax la mu ñu wax moom source a mooy ne Ismaïla Madior Fall moomu ci boppam jëwriñ ji fa dig rapport na leen dinaa waxtaan ak procureur sàkk ci moom ngir mu bàyyi nit dof ak Abdou Karim <laughs> Afrique li ñu war a dundee njiitu réew Macky Sall na fa kàddu yi amati solo ah, yaaw seetal fa wax ne Afrique gii waratuñoo xiif waratuñoo mar ndax lépp fi suuf seeg ndox meeg lépp wax na fa sax jéego yi nga xam ne réewum Sénégal dox na ko ci kaaraangay wàllu lekk gi bay dundee lii yéene kaay na njiitu réew Macky Sall kay gàcce ngaalaama fukki at ak ñaar li mu def ci réew mi bilan ba lépp la mun tëgaa si wax yokkute yu am solo rawatina sax wàllu bon gouvernance ak yorin wu sell ak fexe nañ ba Sénégal moo juróomeelu elew ci wàllu bonne gouvernance laas na ko moo tax waa FMI yi fa rafetlu jéego taxawaayu njiit réew Macky Sall ak réewum Sénégal ci wàllu koom-koom bi ni mu yokkoo léeg si ko yéene kaay na ko waaye nag waa FMI fa ñoo wax ne fitna ji amoon Sénégal ci ñaxtu yeeg taxal dëkk bi tax na wàllu koom-koom bi croissance bi fa wàññeeku benn point la soleil yéene kaay moom fa xëy di ñu wax deer lim jote financé ci Sénégal bëri na lool ci ay ndaw waaye ña ca gën a bëri nag soxna yi la leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne ci màggal ak Tuubaa gii taxawaayu directeur bu Senelec fa rafet lool te mucc ayib Mariama Cissé dëkk ca Kaolack ndangaan Medina Baye Niass nekk jegeñaale Pape Demba Bitèye moo ko wax te nee na doy na ci firnde Pape Demba fexe na ba ren Touba courant coupé wut fa kàddug Mariama Cissé yi madame Niass mu ngi ci la république yéen a kaay a kaay bi di l'évidence moom it fa jox kàddu Samba Ndiaye directeur général grand train du Sénégal moom it ci màggal ak gi fa wax ne taxawaay bu mucc ayib ci la terrain bi amal lu jege juróom-ñetti junne yi doomu aadama terrain bi yóbbu na leen ren ci màggal gi Samba Ndiaye na loolu lu ay nit ñoo xam ne fañ dem doon def naka su dul noona ba tax na takk der yi police bu Sénégal jàpp na ca ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn doomu aadama Adama turbine yéen a kaay moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom enquête yéen a kaay mooy Dumbuya njiiti réew bu Guinée Conakry askanu Guinée fi toll ni waxatuñ ci moom dara fañ doon amal ñaxtu ci seen anniversaire biñ foqartee nguur ga ñaari at ak léegi ngir mu xabal leen fi toll ni fa ñuy sàkku Alpha Condé ñëwaat jiite réew ma ñaxtu yooyu ndaw ñu doon amal sax rey nañ ca ñetti ndaw ndaw li def lu baax nag te dëkk Sénégal mooy fa jàng alquran ba mën ko a loola suba nag ci lañ koy teeru fii ci Sénégal loolu baax la li baaxul nag ci Xaadim Ba directeur bu Lok afrik mooy ne fa nekk ci ay jafe-jafe mbir yu garaaw ah, yaaw fa ngay xool fañ ko porté plainte ci wàllu fraude ak falsification document ak jéem a tappale ba tax source a na Xaadim Ba kay Lok Afrique tii suma ko mbaaw libération moom fa ñoo xamal na fa xam benn étudiant boo xam ne fa faatu ci anam gu lëndëm gu leeru daal léegi nag ñetti xale yu góor yi bokk ñoom fañ leen jàpp ci faatu étudiant boobu donte ñoom fa wax ne étudiant bi kenn rayul ko fa xaru waaye yëfi fa tey xel laneen lu tey xel ci képp ku ko dégg les si ko yéen a kaay moo ñu ko xamal ah, yaaw seetal fa xam benn militaire fañ koo tuumal ne fa doon sàcc xawra jàmbur aay yëf yaa nga amee ca Fass Mbaaw tali maam jaara <laughs> waa ma ne gis ngeen man wàllu sàcc xawra yii man daal ba léegi yëf yi fa maa jaaxal faa xamul daal dëgg la wala du dëgg ak naka la mën a demee yow jox na di loxo rek sa xawra ya dem <laughs> bu dee dëgg la de ku ñu yóbbu sa yos de su yóbbu nga dem jëli ko laay mooy àdduna boo ko ñàkkee de fa ngay woyee di ba pare